parvenir euh, wala ëllëg ak jàmm lu ci gën a gaaw parce que jàpp nañ ne liggéey bi euh, soobu nañ ci ginnaaw ba ñu defee ni nga xamante ne moom moo jëm euh, ci sol mbubu président bi Abdoulaye lan ngay xarandi ci li nga xamante ne peut-être moom moo di ci formation gouvernement bi déjà on a aperçu le président Ousmane Sonko moom itam bi mu jógee foofu ca Diamniadio actuellement mu ngi palais de la République. waaw encore une fois gouvernement bi tey su ngoon la suba la. ba il a fii ba le cinq la je crois bien que ba mu si mënti doon ah, amul si amul si retard lépp solo mooy euh, man fu mu toll nii ban profil euh, d'abord la ñuy njëkk dégager pour euh, la poste de premier ministre. Mhm. góor yi doon wala jigéen lay doon bu jigéen tam bu doonee jigéen tamit gars yi daañu wax bravo. Mhm. pour vu encore une fois que ñu xam ni si biir Euh, coalition Diomaye président yaa encore une fois ñi nga xam ne ay góor lañu ay jigéen lañu xam ne am na ñu jaar-jaar te am nañu xam-xam. Mhm. loolu moo ci am solo. Euh, plus loin am na ñoo xam ne tam ñi ngi fi am nañu jaar jaar am nañu xar euh, am na ñu xarañte ba ci parti démocratique sénégalais bi mu mujjee ñëw ba ci Karim Wade bi nga xam ne jamono ji mi ngi mi ngi Qatar <laughs> ah oui c'est-à-dire euh, mais quand même en terme de coopération internationale am na loo xam ne xam na ko si mhm. sa à dire que sans sans ngay leneen ak leneen mais boo xoolee tey même si ñi nga xam ne dañoo wut nguur comme Bassirou Diomaye ni mu doon wutee nguur si biir ñooñu am na si ñoo xam ne itamit ay borom mi xam-xam lañu. ce ce qui était de l'opposition des candidats de l'opposition yi nekkoon ci kii jëlal Boubacar Camara kooku soxlawul. Mm-hmm. un docteur Abdourahmane Diouf ah non un docteur Abdourahmane Diouf non un docteur Abdourahmane Diouf qui est dans la coalition Diomaye président mm-hmm. koo xam ne c'est un c'est une compétence avérée. jëlal Déthié Fall et consort je dis Malick Gakou je dis et ñi nga jàkkaarloo woon seen biir am na ñoo xam ne dégg ma am na nañu étoffe. Euh, occuper poste boo xam ne xëy na boo leen ko dénkee dina am solo léegi nag li ñuy war li ñuy xalaat kay mooy quel sera quelle taille pour le gouvernement. quelle taille. est-ce que ce sera une taille moyenne taille réduite ou une taille élastique xamu ko ñu trente la vingt la quinze la xamu ku ñu. voilà foofu la ñuy foofu la ñuy xaarandi mais je dis encore une fois ma euh, Bassirou le président Bassirou il est parti pour véritablement tànn ay nit yoo xam ne effectivement daañu gis ne ñi nii am nañ si solo. Euh, ñoom yaa seen Fall maa ngi koy wax sànq. Amina mhm. Touré Aïda Mbodj je crois que y a trois dames yoo xam ne lañu ñu am na solo au au auprès d'Ousmane Sonko auprès de Bassirou Diomaye léegi l'équation reste Sonko. ba man dama jàpp ni Sonko man dama xalaat ni Sonko en réalité du du dugg bay doon premier ministre si sama xalaatu mbopp lu taxam mu waxee ko noonu mooy posture am par rapport à à celle du président Bassirou Diomaye fay te encore que le post de premier ministre dafa nekk verrou verrou boo xam ne moom mooy nekk nekk tampon si gouvernement bi askan wi syndicat yi organisation professionnelle yi ak président bi c'est le premier ministre qui en est le mm-hmm. est-ce que en réalité Sonko posture boobu baax na ci moom par rapport ak dayo bi mu am si sama gis-gis dama naan déret est-ce que dañ koy jox poste ministériel foofu itamit jox ko poste ministériel pour man si nit ki ak nu mu mënee doon nopp nit ki si orientation foofu man pour man il pourrait même être inefficace je en encore une fois il peut être efficace très efficace ultra efficace sans trop se montrer étant l'un des plus proches du président Bassirou si li nga xam ne mooy duo bi ma doon junj boobu ba léegi si li nga xam ne moo di liggéey. être son ombre. si on peut l'appeler ainsi du président euh, Diomaye et ne pas prendre de poste pour lui permettre quand même de travailler ci kii euh, conseil spécial du président il y a énormément de nominatifs si mm. loo xam ne en réalité dina permettre sax les langues fourchues duñu teel a commencé am euh, <laughs> ay fi ñu koy waxee pont ñuy daaj jàmp je crois bien que à ce niveau loolu dina si am solo mm-hmm. il y a également le fait qu'il soit jeune mm-hmm. le président Euh, dans sa coalition également il y a des jeunes il y a des très jeunes yoo xam ne tamit xam nañu ni ay jeunes la lañu yoo xam ne am nañu dara seen bopp am nañu jaar-jaar léegi nag il ne s'agit pas d'une gouvernance de jeunes il ne s'agit encore il ne s'agit il s'agit encore moins d'une gouvernance boo xam ne on dira oui c'est le symbole de l'alternance générationnelle je dis encore une fois on a besoin de toutes les compétences compétences chance bi ñu am sphère politique bi gën faa fës ki si gën a mag amul amul amul cinquante cinq ans. oui. xam nga dégg ma ku si gën a mag amul cinquante cinq ans. ñi bokk ci projet bi. non non dama ne sphère politique bi laa wax. Mm-hmm. ñu si gën a fës le ñu si gën a fës. dana ñu ñu si gën a mag ñu si ëpp ñu si mag amuñu cinquante cinq ans. Mm-hmm. cest à que la ci am au-delà de cinquante cinq ans la néew la ci. cest à que c'est un nombre aujourd'hui qui a plus de cinquante cinq ans. comparé à la masse. Mhm. li solo donc loolu tam dafa dafay dafa am tamit solo. parce que yow wax nga ko jëlal Abdourahmane Diouf jëlal Déthié Fall jëlal euh, Malick Gakou jëlal Anta Babacar Ngom jëlal jëlal jëlal jëlal tu vois euh, tous ils n'ont pas cinquante cinq ans. Mhm. foofu lay waxee. donc bi donc am na loo xam ne buñ ko toggee dëggantaan togg boobu buñ ko toggee dëggantaan. Mhm. mën nañu jural dara mais. à condition de mettre en avant en avant lenn kese yitteel la mooy servir ton pays servir ton pays en fixant li nga xam moo di objectif par rapport ak lañ may dénk chaque semaine chaque mois chaque jour naka lay fexe pour atteindre un deux trois parmi les objectifs qui me sont assignés. Hmm. je pense que loolu bu si tënkoo en ah, diminuant li nga xam mooy politique politicienne. comme ni ñu ko dundee si gouvernance bi passé gouvernance bi passé nous avons vécu une politique politicienne à tout va parce que président bu toogee ba naan ay directeur général ak yu demee ku perte ma dàq la c'est-à-dire que loolu mooy politiser politiser pour défendre le président. non je dis voilà voilà. Mhm. je dis encore une fois dañu c'était trop c'était trop politisé. am ay sans sans sans compter la la la la la présence massive de mercenaires politiques de de nervis politiques. donc yooyu tamit ñu fii moom foofu foofu ñu moytu yooyu yëpp pour véritablement am benn ligne de conduite boo xam ne en réalité euh, tu seras toujours en parfaite adéquation avec les aspirations du peuple et par rapport justement aux objectifs à atteindre. merci beaucoup euh, Serigne yow itam par rapport ak euh, li ñuy xaar ci formation gouvernement bi euh, ñu koy xaar fii ak suba peut-être ñu daal di ciy xam lu leer noo ko jàngatee. waaw mais mooy li ma la waxoon keroog rek un gouvernement par le peuple et pour le parce que c'est une exigence et je pense que bu ñu tenir en compte aussi ci conjoncture nationale bi ak conjoncture même mondiale bi waruñu mën a am gouvernement boo xamante ni lim bi ci ay ministre dafay takku lool bu fekkee tenir nañ en compte contexte bi fi nga xamante ni aujourd'hui contexte national bi ak contexte mondial bi loolu woote parce que ñëpp xam nañ ni aujourd'hui Pastef dafa woote rupture je le répète encore une fois rupture par rapport ak doxalin bu ñaaw bi nga xamante ni amoon nañ fi li fi amoon ci ab lim ba ñu amoon ay ministre auprès yooyu je pense que Pastef tenir na ci en compte et je pense que dinañ def le maximum possible pour avoir à la tête de certaines administrations des gens recrutés sur des bases essentiellement technocratiques parce que loolu la Sénégal soxla les profils ne manquent pas on a assez lim nañ ko léegi surtout même ci seen biir coalition y a des gens tellement chevronnés ci domaine yi nga xamante ni ñoom ci la ñuy yëngatu que ce soit ci économie ci nangam nangam nangam nangam te boo xoolee Sénégal sur le plan économique aujourd'hui c'est un pays bu nga xamante ni mën nañ wax ni suñu système économique et tellement agoniser boo duggee ci mbay mi nangam nangam nangam nangam moo tax ma ni la contexte boobu yëpp war nañ ko mën tenir en compte parce que dañoo war a jëm nag ci sensu réduire réduire véritablement le train de vie de l' état te réduire le train de vie de l' état ci mi ngi tàmbalee ci ci lim bi nga xamante amoon nañ ko ci lim ministre yu ñu weesu ñu gën ko tënk nga ko wàññi parce que nag nañ waxante dëgg boo demee fii ci yenn administration yi wala yenn ministères yi da ngay gis boo xam la muy liggéey boo demee ci beneen pourquoi pas ñu fusionner yenn administration état bi yenn ministères yi war nañ leen mën a fusionner. donc mhm. tas bi ñu leen di tas noonu dafay gën a augmenter le train de vie de l' état et cela nous coûte véritablement. très que ci noonu tas boobu ñuy tas est ce que doonut euh, pour caser voilà caser seen client voilà ñu si bëree bëri noonu lañ ko noonu lañ ko jàngatee ba ci mm-hmm. haut conseil bi ñu fi doon waxtaanee keroog. Mm-hmm. yu bëree bëri xam nga moom ci programme bi bëgg nañ ñu tas au conseil des collectivités territoriales mais également conseil économique. waaw mais xam nga xam nga xam nga xam nga man. Mm-hmm. condamné wu ma nit jàppale la. nga falu am foo ko teg jàppale ko. mais ki ngay ki ki nga xamante ni dafa la jàppale ba nga falu itam boo koy teg teg ko lu méngoog dayoom itam waaye bul jël koo xamante ni la nga koy dénk xamu ci dara fii gis nañ ci administration yi ñu wees yëpp ci ministère yu bari da ngay gis koo xamante ni pratiquement xam-xamam ci way rek la màcc ci way rek la màcc nga dem jox ko ministère boo xamante ni économie lañ fay waxtaane nu économie réew mi war a demee mais kooku yaa ngi rek ñaatoon lañ fi gis des gens yoo xam dañu leen dénk ay ministère te amuñu ci benn xam-xam amuñu ci benn compétence certes ki la jàppale boo faloo war nga ko jàppale mais nañu jàppale ñi leen falu selon leur intention selon le niveau de projet bi nga xam dina am conformité ak ñoom seen dayo ni ñu toll loolu c'est tellement important mm-hmm. man nag aujourd'hui li ma waxoon ci laay rebondir on ne doit pas avoir un gouvernement bu nga xamante ni bari na ay ministre ci lim yoo xamante ni mënoon na ñàkk mën na ñàkk loolu nañ ci bàyyi xel beneen bi mooy cumul de fonction yi Fatima nañ ci wax Pastef a vendu un projet au peuple sénégalais bu ñu ko fàtte aussi te si seen projet boobu cumul de fonction dañ koy bañ. député maire ministre maire yooyu yëpp mhm. xel biram su lay jot loolu su na benn benn débat. Mhm. man je condamne fermement cumul de fonction dindi. nañ ko dindi ci yenn yi aussi il yenn ministres yi nga xam dañ leen ni tabb ñuy gérer yenn administration yi nañu jël seen responsabilité. parce que dafay changer. jël disponibilité ci ministères yi ñoo xamante ni c'est des emplois fictifs am na ñoo xamante ni du ñu xëy chaque weer bu jotee ñu dem jëli seen salaire.